salaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jàmm ci seen sport 221 jëlee nañ ci kayiti xibaar yi ci ne Manchester United dañoo am déggoo seen digganteeg Burnley ci attaquant bi nga xam ne moom la ñuy wax Weghorst Wout Weghorst nekk ab dégg maam joueur hollandais la yéen a ngi koy fàttaliku ci mondial bi passé mooy ki nga xam ne moo taxoon ba match bi doon dox diggante Argentine ak Pays-Bas dem ci prolongation yi mooy kooku duggoon dal dugal ñaari bit yu gaaw yooyu la ci ñu dem prolo ci prolongation yi moom day jamono bii mu ngi ca Besiktas dañ ko faa able léegi nag déggoo léegi nag li nga xam ne moo des mooy ñii di Besiktas dañuy wut ki nga xam ne moo koy remplacer foofu ba noppi suñu amee remplaçant ba noppi ci la koy soog a mu dem voilà dal di signé ci foofu la déggoo moom am na li des rek mooy mu dal di ñëw signé comme ni ko kayiti xibaar dal di biralee gannaaw loolu ni suba la ñuy li nga xamante mooy Super Coupe d'Espagne mu nekk dégg maam euh, xam ne ñeenti équipe képp ñoo koy football Ferland Mendy dafa am blessure du bokk ci match boobu Real war a jouer seen digganteeg ñii waa Valence xam ngeen démb jotoon nañu xibaar ci ne ki nga xam ne mooy David Alaba ak euh, comme latéral gauche ni ki suba séntu nañu ne daal mooy joué ci côté gauche bi ndax ki nga xamante ne mooy David Alaba bi ñu séntu woon ne xëy na moo war a joué bu ma mendi nekku fi momit dafa blessé demul kon man nañu wax né Real Madrid am nañu jafe-jafe voilà ci li nga xamanteni moy tournoi bobu kon ki nga xamanteni mom lañu wax Camavinga lañu gëna sentu ci né mo wara a jouer ci côté lé ki nga xamanteni mom lañu wax Pathé Ciss l'international sénégalais Olympique Lyonnais dañu ko bëgg Olympique Lyonnais bi nga xamné jamono Laurent Blanc mo leen di tagat mom nak fimné ni dafa bëgg renforcer li nga xamné moy digg bi ab numéro 6 dal lay wër ci marché bi ta fimné ni nak mom dafa dal di baye xel bu baaxa baax ki nga xamanteni moy mooy Pathé nak la bëgg Pathé Ciss nag jamono bi mo ngi la ci Rayo Vallecano ñaar fukki at ak juróom ñett am na ko mu nekk joueur boo xamante ni nag fii ci jàmbaar lañu ko formé avant muy dem foofu ñuy wax ci union madera voilà abal abla nañ ko ci club bu mel ni famalisao mu mujjoon fi nga xam ne fuen labrada ci deuxième division bu espagne ba muy fay jógee di ñëw fi nga xam ne mooy rayo valcano. mu nekk nag joueur bu xarañ yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ko moom nag li nga xam ne mooy rôle am dëgg-dëgg muy ab relayeur donte ne nekk na ko xam ne mën nañ ko jouer loo tam comme milieu défensif voilà kon moom daal ci digg bi moom foo ko fi teg day dem voilà moo tax jamono bi kii laurent blanc bëgg na ko yóbbu foofu la ci olympique lyonnais bu ñu ko ci kay di xibaar loolu bu dee transfert la boo xam sotti na japp naane bu baax lay doon ndax Pathé Ciss nag bu ñuy ren ji mom li nga xamne moy temps de jeu wul bu baaxa baax ak ñi di rayo kon bu fekkente ne bu demee olympique lyon dina am di nga maam temps de jeu bu doy japp naane lool moy doon li gën ci mom gannaaw loolu FC Barcelone dafa wara a dégg maam euh, seen euh, défenseur bi le bok sen défenseur bi nga xam moy Eric Garcia jamono bi dañu séntu ne mën dem ci Arsenal Arsenal dañ ko bëgg surtout ki nga xamne moy Michael Mikel Arteta mom dal dafa bëgg renforcer li nga xamante ne mooy défense Arsenal bi xam ngeen Arsenal jamono bi nekkuñu ci ay tiaxan moy équipe bi gëna taxaw ci Angleterre mën nañu ko wax ndax bi ñu jiitoo ba léegi gars mënuñu leen dab te moom nag li nga xam mooy yitteem yépp mooy fexe gagné li nga xam ne moom cinquième euh, wax ne bu fekkente sax ki nga xam ne mooy Marcos Alonso bi nga xam ab latéral gauche la sax moom la Xavi gën a wóolu joué loo ko comme arrière central que Eric Garcia kon moom dafay ñëw ci cinquième position moo tax daal jamono bi kayiti xibaar li ñu biral mooy ñii di Arsenal bëgg nañu ko te njort nañu ci ne bu ñu dëggalee seen bopp mën nañ ci jot li ñu bëgg nag mooy ñu abal leen ko voilà ba saison bi jeex comme ni ko kayiti xibaar yi dal di birale kon foofu ki nga xamante ne dégg mooy Koundé am nañ fi Christensen voilà kon ki nga xamante ne mooy Eric Garcia bu demee itam bi polémique ok ñu jall ci leneen ki nga xamanteni mom lañuy la wax de nga Buffon Buffon de mom nek na ko xamanteni fa fukki at ak ñent amna ko ba japp juroom sax dana ñu fi nek fi lek ci kanam dina am ñen fukki at ak juroom manam 45 ans lay waja lak tay ji titulaire la ci match bobu nga xam mu ngi wara dox wala bok mu ngi dox Parma ak ñi nga xamanteni ni di AC Milan mu wara nek ci li nga xamanteni moy mooy nga Coupe d'Italie Inter la Milan Inter Milan la bok Inter ñoy jouer sen Parma gi nga xam jamono bi fofu la ki di Buffon nek bu ñen fàttale ko Buffon fofu la tambalé carrière ndax nga nañu de ñaar fukki at ak juróom ci gannaaw bu ñu xool ci atum 1997 ci la jeu won matsam bu ñëk ci walum coupe d'italie légui nak mën nañu wax ne ñaar fukki at ak juróom gannaaw ga mu ngi ni tey ji amna 44 ans di waji am 45 ans mu ngi non titulaire at encore ci jeu ci li nga xam moy coupe d'italie kon mu nekk lo xam carrière bu gudd la bo xam bari wul joueur bu ñuy gis mo am ko kon jamono bi 44 ans la am di waji am 45 ans tay ji titulaire la ci match bobu dox diggante Inter de Milan ak ñi nga xamante ñori wa Parma ci coupe d'italie ki nga xamante mom lañ wax Cheikh Sabali Cheikh Sabali bok dafa daldi marquer ab but mom nak ak ab sénégalais nekk foofu nga xam ne mooy ci FC Metz voilà jamono bi ñoom ñu ngi doon jouer seen digganteeg Nîmes Olympique ñetti bal ci benn la ñii di Metz jiitoo woon ci ay jamono léegi nag moom dafa dugal benn bal ci jogante googule kon moom it nekk na koo xam ne mu ngi wane boppam foofule ca Ligue 2 française loolu lañ fi gënoon jàpp gaay ci tënkum xibaar di leen wax ngeen continuer suivre Sen Sport 221 the best sport news channel